mais li waral kay xam ngeen ko dañuy organiser dañoo organisation bi la nekk loolu rek moom fii pour euh, parfaire euh, l'organisation cette euh, modalité yi li ñu war def lépp modalité yi ñu jàpp lépp mooy une bonne organisation benn sécurité bi gis nga de police baa ngi fi gis nga waa sapeur pompier ngi fi woon euh, CNG ngi fi presque quatre cent éléments de sécurité. presse bi disposition yi mooy ñi nga xam ni ñooy 2S muy euh, produire mooy dugg ci stade bi ak ITV dafay am plateau bu ndaw ñu jox signal Sen TV ak 7TV keneen du fi. kenn du fi dugg chaîne YouTube ak site lu mu mën di doon kenn du dugg pourtant non accréditation yi ma lancé woon ma moom su ma neexee lancé su ma neexee ni tey ceebu jën laa bëgg suba ma ni bëggatuma ko non dara du ci dugg amul bul xëccu question benn site du dugg c'est clair c'est net un plus un égale deux benn site non benn disposition amu ci maa moom sama yëf site yi da ngeen di liggéey borom site yi dañuy liggéey lam leen di apporter xëy yéen yi yéen ñi liggéey site sax xamu ñoom ñu ngi am seen i vue ñu nga am seen contrat YouTube ñu ngi ciy liggéey di ci gañe xaalis nan continuer seen liggéey boobu feneen mais du ci làmbu Gaston Production du ma indi benn brèche bi ma mën a indi mooy benn partenariat parce que mënu leen ma fay d' abord mënu leen ma fay kon partenariat mënu ci am su ah, su làmb ci jeexee nag ku bëgg rëch mën na laa jox ku bëggul bu nu ko laaj